yàlla ubbi sama biir bi na Muhammad di gane àddina bi muy juddu tànku ndeyjooram la njëkk a génnee teg ci àdduna ne allahu akbar kabira moom yonent bi génnee tànku càmmooñam ni alhamdulillahi kasira ni liir yi di def bu ñuy judd moom na Muhammad daf koo def dafa bank baaraamam yii joxoñ baaraamu sànni kaayam ba mais booba yàlla lay waxal jalaala rabbin rafiin qaala xiina ata wa xiila sabaxa fi takbiri zil izami di bàkk yàlla kenn réewle wu ko bi mu juddoo dafa indaale xet goo xam ne dafa jaaxal waa Màkka wallaahi mm-hmm. parce que xamuñu fu ñu ko sottee parfum ci diggante bi te xet gi muy xeeñ tàqalikoowul ak moom allahu akbar ndekete booba bi mu waree juddu mm-hmm. yàlla def ni wa axrajathu nadifan ma bihi qadarun lim la wa min tibihi tathiru li sutumi moom yonent bi dañ ko programmeel parfum aljana yi ñu mm-hmm. tuur ko ko avant muy juddu sallallahu moo tax bi muy gane àddina indaale xet yi boppam alaaji Malick nee na wa riiquhu laysa riixul miski nee na xetu parfum yenente bi bi mu indaale mhm. munoo koo wër ci marché ba dajeeg moom nee na nuroowul ak misk laysa riixul misk bokk na ci parfum yi gën a mag te miski araab daf ko fonk wallaahi léegi nag pour mu wax la ni xeetu yonent bi moo dàq misk moo tax mu ne la wa riiquhu laysa riixul misk boo ko jaawaleeg misk nuroowuñu est-ce que mu indaale xeetu boppam sallallahu alayhi wa sallam tus nga lu nag mhm. bët ya leer parce que moom yonent bi boo ko mës a gis bu ñu la koy misaalal dañ lay wax ne la ay bëtam dafa rëyoon. Mhm. la cay weex dañuy tàll la cay ñuul ni kukk. mu amoon ay ndombay baat. Ah. su waxee ak bu réewee sàkkar yàlla bi day génn. Maodo nee na day mel ni wurus la jël tay ko ba mu mokk sotti ko ci gémmiñ gi. iza takallama ri an nuuru yaxruju min bayni sanaya buy wax ak yow doo yàkkamti mu noppi ndax xet giy dégagé ci gémmiñam gi. mu njooloon bu àndeek ku gàtt ku gàtt ki day feeñ. parce que mm. yonent bi mbagg amul droit sut ko. Mm. noo mën a ànd ak moom doo ko sut yàlla day wàccee mesure am ba mu tolloog yow buy dox du geestu moom Seydina Muhammad ni may gisee kanamam noonu lay gisee gannaawam su la masaan a nuyu fii ak un mois yow koo joxaat loxo day xam ne nuyu woon nga yonent bi ndax day bàyyi ci yow parfum boo xam joxee nit loxo rek danaan la ah nuyu woon nga Seydina Muhammad da nga ne ko waaw nuyu naa ko vingt jours ci ginnaaw mais parfum bi dañul su dee dox suuf du génnee jeexitalu tànkam ndax suuf da ko ormal bu jéggee yëkkatiwaat gi suuf da koy effacé bu génnee di dox montagne yi dañ ko naan asalaamu aleyka ya rasulallah muy fay nuyoo garab yi naan ko asalaamu aleyka ya rasulallah muy fay nuyoo xar yi naan ko asalaamu aleyka ya rasulallah yenn saa yi mu romb nag nag wi taxaw ni ko asalaamu aleyka ya rasulallah da ngaa yaakaar ni nit ñi doo nga la xam mm-hmm. ñun nag yéeg bëy yi sax xam na ni sunu existe ci àddina yàlla nga ko jaarale ci yow oh, lu ne di ko nuyu moo tax fajar gi mu juddoo nag Mm-hmm. alaaji Malick nee na ci la àddina leer ci la jamono tiitaru mm-hmm. ci la àdduna bëgg kaaba gii ngay gis ñu di ko wër mm-hmm. keroog bi Seydina Muhammad ganee àdduna kaaba gi jaayu na ñetti fan mënta taxaw ndax kontaan te zalzalat ustuwanatul muluki ka kaabatin salasata ayamin fa lam taqumi ña ñu tuddee woon ay buur parce que Makka du am président buur lay am ca booba jamono ñan tuddee woon ay buur bi ñuy tëdd guddi ci seeni lal lañ tëdd mais ñu yeewu gis lal bi féete kaw ñoom ñu féete suuf ñuy xalaat da tremblement de terre dafa am ba tax ñu féete suuf lal bi féete kaw ñu ne leen tremblement de terre amul dara xewul yàllaay wane boppam da leen di jàngal ni du ngeen ay buur buuru buur yi judd te may bàyyi Fatima ak Roqaya ak Ummu Kalsum Seydina Muhammad sariiru kullu malikin saara muntakisan bilaa xilaafin wa rabbil kaabatil harami mhm. njool màkk judd àddina billi ñu yokk leeraayu jant bi drapeau yi di fëletewu bu kilifa di génn dañ naan drapeau bi jug na bu kenn yëngatu waaye bi Seydina Muhammad juddoo nag drapeau bi daa fëletewu raat salasata alamin qadin tasabat fii kaabatin masriqin wal maghribi tasimi yàlla ni maa ngi waat tallaahi la Seyd Haj Malick waat oh. waat buñ koy def dañ naan billaahi wallaahi tallaahi Maodo ni bàyyil ma préféré tallaahi tallaahi hmm. maa xiftu taxniisan ala xasami charwaahu maa dammahul asdaafu min tuwam Maodo nee na maa ngi giñ ci yàlla ni yàlla mënatula indi ku mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënatul nekk ndax li ko yàlla defal mhm. yonent bi gën a rafet ñëpp wallaay madoo soo ko dee xool da nga naan nan naka la ko yàlla bindee mhm. moo tax Maam Mansour nee na su ngeen bëggee noppalu xalaat leen ni daal bi bi ko yàlla yi bind mhm. yàlla moo ko doon laaj noo bëgg ma mel ko yonent bi noo bëgg a mel sa bakkan bi nan nga bëgg mu toll ko sa nopp yi noo bëgg mu mel ko sa njoolaay fan la war a yem mm-hmm. mu koy expliquer ka annahu kama yashaa'u sawwarahu baarin nasam dafa mel ni daal bi ko yàlla bind moo toogoon di exister yàlla moom yonent bi ni mu bëgg a mel naan yàlla oh, nii laa bëgg a mel ndax taar ci moom la fekk baax boo ko dee xool da ngay yëg plaisir. Mhm. yenn saa yi nga laal benn parfum ne parfum bi plaisir la. mais yonent bi boo ko dee xool doo doyal. barke yonent bi mi ngi ci bàmmeel te boo demee ci raw doom ba boo demee ci raw doom ba doo fa bëgg a jub. boo toogee ma a madinatul munawwara ñu ne la fii la sangu àddina ak alaaxira tëdd nga yëg ni moom moo waxoon ni fi ma tëdd bokkul ci àddina ca jardin wu àjjana yi la bokk nga yëg ni yaa ngi àjjana te deewagoo boo xefee tuuti bu ñu la newul jugal da ngay nelaw nga yëg ni yàlla am na kum féeteel te sayyidna muhammad la féeteel sallallahu alayhi wa sallam oustaz li nga wax dafa am solo ginnaaw macha allah lu baax li nga wax yëpp ci moom nga xamante ne bésu gàmm ci boppam euh, nañ koy euh, féete li nga xamante ne du ma ne sax féete mm. waaye gane see àddinaam kon naka la nit yi war a comporté woo ci bés boobu guddi gaamu bi lan la nit yi war a def exactement. màggal ko. te sellal ko. Mm-hmm. te bàyyi caaxaan. Mm-hmm. xam ni ki ñuy màggal mooy gën gi mbindéef. te dañuy faral di wax ni dëkk boo xam ni boo fa demee da faa war a defaroo. Mm-hmm. soo fa yàqoowee fooy defaroo. wallaay moo ñu jaaxal. Tiwaawan dëkku leer la mm-hmm. Kawlax dëkku leer la mm-hmm. Njaasaan dëkku leer la Tuubaa dëkku leer la mm-hmm. dëkku mag ñu baax ñi ne ci réew mi yëpp ay dëkku leer la mag ñi dañ fa toog temps bu yàgg yor seen kurus am turu yàlla yu ñu fay sikkar ba tur ba bënn nga xam ne yàlla nangul na leen ku fa dem texe ku ñu fa denc sax yàlla rus la yenn saa yi nga gis ko faatoo fii ñu ne nañ ko yóbbu dëkk sàngam xam nga lu tax xam na ni mag ma toogoon na ca suuf sa ñaan fa loo xam ne ku tëddandoog moom hmm. yàlla rus la moo tax nag ñii dem nañu war a comporté woo mooy xam ne dëkku leer ca lañ jëm waajal seen bopp hmm. yàlla daf ni woon su ngeen dee dem màkka hmm. na ngeen defar comportement yi wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa kuy aji màkk loo bari bari caaxaan yàlla nee na defaral sa comportement xam ne dëkku yàlla ba ca nga jëm dëkk ba Seydina Muhammad gane àddina fa nga jëm mhm. dëkk bañ ko denc muy Madinatul Munawwara fa nga jëm mhm. kon waajalal sa bopp mhm. la valable Makka valable Madina moo valable Tiwaawoon moo valable Touba moo moo valable Njaasaan moo valable Kaolack bu fa kenn demee demu caaxaan kuy dem Tiwaawoon na la yàlla yóbbu kuy dem Tiwaawoon na la bëgg Seydi Hadji Malick ak njabootam yóbbu kuy dem Tiwaawan na nga xam ne Maodo màggal juddug Seydina Muhammad la wootee ñu bàyyi ci xel ci comportement yi ci waxin yi mhm. ci toogaay yi mhm. ci defaraay yi ci lépp lu mën a doon luy yéwénal bis bi mhm. nga xam ne kenn waru la caa jiitu waaye nit war naa rusa dem ci dëkk bu mag mu baax defaral boppam nga dem fa di fa def dara lu safaanoo wala loo xam ne bokkul ak bëgg-bëgg borom dëkk ba waaw comme ni nga ko waxee waaye ginnaaw li nga xamante ne biti moom moo di peut-être comme rek xam nga yi fi àddina nag mënut a ñàkk mooy togg yeeg bernde yi sañse yeeg yooyu est-ce que am na ay dog yoo xamante ne nit yi war nañ ko jël ci bës boobu euh, def ko ci wala dañu war a bàyyi wala di jàng lan nañu war a def exactement ci côté diine bi li ñu war a def yooyu yëpp ci journée bi voilà mhm. mooy li ma wax ci màggal gi rek bërki démb mhm. ma ni leen kuy critiquer màggal mhm. raison booy am ba critique moo lay jaaxal. Mhm. maanaam booy critiquer màggal. Mhm. munoo am raison. dëgg la ñëw leen Touba. Mhm. jàng Alquran. ay xasaayit. teralal ma gan ñi. berndeel leen. toppatoo leen. mais lii lan moo ci aram. jàng alxuraan dagan na mm-hmm. berndeel nit dagan na yonent bi nee na jox nit ku xiif mu lekk ba biiram fees moo gënal yàlla wër kaa bëgg juróom-ñaari yoon mm-hmm. importance su joxe ñam mm-hmm. sidna Ali garaat bi mu am li ko ko may mooy joxe ñam wallaahi parce que daa woor ba ngoon war a ndogu am ku ñëw bëgg ko mu jël ndogu li jox ko ko jàpp ànd ak yàlla yàlla ni Jibril demal nga tiim ko tagg ko ne ko lim def tuutiwul wa yutimuuna a ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira di def géeram bu ko tiimee di ko joxat bi mm-hmm. noonu la jibril def aliin nan ko wa yutimuuna taama yaay gor ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira mm-hmm. yàlla nee na li nga muñ ba joxe sa ndogu li mm-hmm. ëllëg la fayee àjjana moo tax kuy joxe ñam yàlla fayee la àjjana am na yoo xam ne nag mënta ñàkk ku dem Tiwaawan danga nga jaamu yàlla mhm. da nga jàng alquran da nga julli ci yonent bi da nga sañse mhm. sañse da cee bokk taalibe cheikh mhm. sëñ Babacar si nee na sëñ Babacar taalibe cheikh warul ragal sañse taalibe cheikh warul ragal sañse tiijaan day sañse xoolal

dañuy wax sa waxtaan neex na te dafa méngoog jamono. Mhm. te xam na lan moo gën a neex dafa am ay xale yoo xamante ne ku mel ni yéen. Mhm. comme yow mhm. ñoo mën a wax ak yow ñu dégg. et vraiment li nga jot a wax macha allah sunu xoli sedd na c'est dommage que temps bi nag dafa gàtt waaye du ñàkk beneen yoon. waaye juste pour xam naa tëj xam naa ne comme ni ngeen ko defee woon. fi nga xamante ne moom moo di màggal bi. yee ngeen di waajalaat lu mag incha allah fi nga xamante ne moom moo di tiwaawan euh, pour waajal gàmmu gi n'est-ce ngi koy waajal soxna Mado ñu ngi waaj ay émission am solo. incha ko defee woon Touba. damay wax ni télévision Futurs Médias mooy jiitu Touba moo fay mujj. dëgg la ndax bu màggal desee une semaine. ci lañ demoon Touba. noonu la ñu koy defaatee itam Tiwaawoon. incha allah ñu ngi waaj émission bu bees. bu mhm. tudd leeral burdu. leeral burdu dana war a tàmbali suba. incha allahu taala mhm. mu ànd ak fukki fani burdu yi. Mhm. bis bu nekk ñu waxtaanee benn bunt. ci diggante bu Busayri ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. daañu dem Tiwaawoon it ànd ak yéen ci burdu bi. ndax bul fàtte ni zawiya sëñ kër dañuy burdu. zawiya Seydi Hadji Malick dañuy burdu mm-hmm. danañ leen jox burdu yëpp incha allahu rabbi daañu fa defit ay plateau di waxtaane yonent bi ndax am na ku toog ci këram mënta dem Tiwaawoon mënul dem kaw Kaolack mënul dem Njaasaan mhm. waaye yàlla ak télévision Futurs Médias dana tax dara du ko raw ci gàmmu gi mi ngi noonu incha allah noonu lañ ko fas yéene bu baax a baax waa oustaz ku jaar ci sañse bi tam lii ah, oustaz <laughs> <laughs> waa ñu jàppe ni que la rek macha allah comme ni mu ko waxee gis ngeen ni waxtaan li am na solo mhm. waaye li mu ci tëjee moom moo gën a am solo kon nag demain incha allah dinañ leen tegal nag ay émission yu mag yoo xamante ne pour waxtaane li nga xamante ne moom moo di burdi bi donc na ci bàyyi xel ndax comme ni ñu koy waxee télévision Futurs Médias saa ne dañuy def li nga xamante ne moom moo di ay innovation mhm. ci noonu ba tey sama rakk ma nag ndax la nga a def ca gàmmu <laughs> xaw ma yow it nooy waajalee gàmmu ga ak looy tàggoo téléspectateurs yi damaa sax fireeku comme mhm. oustaz boole na ci di sol lu na macha allah xam ngeen man moom damaa bëgg ay solu mi ngi noonu jaajëfal nag bu baax a mhm. baax euh, Tati Mado di ñaanal bu baax a baax oustaz mhm. yàgg fi lool te wér amiin yaa rabbi bu baax a baax di ko ñaanal euh, mboolum jullit waaye mhm. itam di bége bu baax a baax euh, les amis de Betty maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax famista beauté nee la moom moo ma génne ci mèche yi ah, moo ma mèche ba ma nice macha allah <laughs> maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax mooy borom mariste xale bu ndaw la di daan dooleem maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax mais nag borom Gambia shop mooy borom centenaire rafet yeeg. ah feeñ na feeñ na non tey moom sañse bi dafa toog mais na ngeen ko ko ci ci ci internet a euh, kojee ma nan laa ko mën a uh-huh. ma ma toog ba léegi génn ma. macha allah mi ngi noonu kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ni mu mm-hmm. ñuy jéggaluwaat a mm-hmm. ne sang bu tedd bi law la cat war na fekk ñu def li nga xamante moom moo di ay muuraay waaye lu ñu bett la ñi naan lu la bett rek mën la mm-hmm. kon nag oustaz ñi ngi jégaluwaat bu baax a baax te di la mm-hmm. santaat ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi nga def tey lan ngay tàggoo téléspectateurs yi jërëjëf Mado ñaanal leen yal yàlla barkeel leen euh, yàlla taxawu leen amiin ñi ci amul ay boroom kër yàlla may leen boroom kër amiin amiin xam nga euh, dafa am feebar yu sew yoo xam ni <laughs> ay xadisa waaw du dal du dal kudul du dal kudul célibataire <laughs> waaw ay bët yuy lëndëm saa yi nga dégg kuy ñaxtu naan sama bët yi day faral di lëndëm. ay waay boo ko seetloo en général amul jëkkër waaw yenn saa yi nga dégg ku lay jàmbat ay tànk yu ruux te nekk xale. bi nekk di def ñaare yooyu boo ko déggee kooka amul jëkkër. amul waaw yenn saa yi nga dégg ko naan la sama nopp yi day riir. moo ko dal moom fekk du tension mais ñàkk am jëkkër la. Euh, dafa am yooyu manqué yoo xam ne kenn mënul wax lan la. Ah, loolu nag euh, yéen célibataires yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen ci yàlla génn duñ gis dara waaw yàlla daal li tax mu ni li tax mu ni ku war a takk soxna na nga takk soxna ku war a sëy na nga sëy moom xam na ko parce que di dox sax di pant mel ni kuy waaj a daanu <laughs> euh, waaw di weng yenn saa yi ngay xëy di reetaan rek waaw ñàkk am jëkkër da koy def ba ci reetaan yu bari célibataire da koy def oustaz tamit kaay ñu wax la tamit ci gàttal ñu fàttali tamit que góor ñoo war a takk tam te góor yi tamit bëgg nañ tamit de trois à mois rek la batante yu yàgg yooyu dañ leen ci wax <laughs> kooku question la bu ma lay jox yóbbu nga yóbbu ko midi bu di ñu xaar loo xaar yu yàgg yooyu ñoom ñooy takk jigéen du takk góor xam nga xam nga xam nga célibataire <laughs> célibataire célibataire daal yàlla na ko yàlla yërëm waaw yàlla na yàlla yërëm célibataire yëpp seen dund gi metti na xat na euh, ah, gaaw nañoo mer waaw dañuy énervé ndax euh, kenn du la xaar reer dañ lay tibbal soo guddee amul problème waaw gàmm gi euh, yow daanaka euh, li maanaam sa sañse dafa yomb sañse célibataire ci gàmm gi dafa yomb méttiwul couple woo waaw yal na leen yàlla yërëm yàlla leen yàlla yërëm donc ñoom xaadim ñoom ñoom nag xam naa ni ak ki nga xamante ne moom moo di Ibou Diouf ñoom nag va yow Ibou Diouf sax yow est-ce que yow doo kii e Diouf ah waa baax na kon moom ci célibataire yi la bokk mais ñoom Xaadim ñoom ñëpp ku ci nekk ñu ngi leen di nuyu équipe technique bi ñu ngi leen di remercier bu baax a mm-hmm. ku mel ni ki nga xamante ne moom moo di j'allais dire Mao Cissé mm-hmm. mais Mbissane tey moom moo fi nekk au passage on fait un coucou à sa femme et ses enfants di nuyu bu baax ki nga xamante ne moom moo di l'homme l'incontournable di ànd ak saa ki nga xamante ne moom moo di Abba mm-hmm. waaye ki nga xamante ne moom moo di la pertinente la la gentille mais la rouvéeuse noonu laa koy tuddee tey kooku moom moo donc ak ki nga xamante ne aussi moom moo di Nabou Aïs question yi doon waxtaane yëpp moom moo ko waral parce que mm. célibataire la mm. donc reetaan ju bare ñi ngay nekkee ak yu yi lay dal mm. nag oustaz wax na sa problème lan la kon kii lay labat nag na am fu la ñëw donc ci noonu rek ñuy remercier mbokku téléspectateurs yi juste si vous me le permettez ñu nuy bu baax ki nga xamante ne moom moo ji am euh, Amdi Amdi nag mi ngi dëkk Wakaam kooku nag moom moo di xaritu Apulaay mm. ak Baye Cheikh mi ngi ñuy seetaan ñi ngi koy def en gros coucou Mouhamed mi nga xamante ne moom moo nekk ci Omar Cheveux ñi ngi koy nuyu Omar ak képp koo xamante ne tey safoo woon nga émission bi nga xamante ne moom moo di euh, seetu bi waaye seetu spécial pour waxtaane li nga xamante ne moom moo di burdu bi ak gàmmu bi wax nañ leen ko bu leen ko fàtte oustaz moom itam mi ngi leen di préparer ay plateau yu exceptionnel mm-hmm. ak aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, ñi ñu war a yónni fi nga xamante ne moom moo di Tiwaawan mm-hmm. donc nag à partir de demain na ngeen rester concentré parce que programme bi incha allah lépp lu jëm ci waaju gàmm gi mu nekk Tiwaawan mu nekk fi nga xamante ne moom moo di Njaasaan mu nekk fi nga xamante ne moom moo di Kaolack ak fu mu munti doon ñu nar a fi nga xamante ne moom moo di euh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam télévision Futurs Médias dina leen ko tegal mm-hmm. waaye ci noonu tamit ma delluwaat Fuuta bi nga xamante ne fa jógee di jox bu baax seen wàccuwaay ki nga xamante ne moom moo di Cerno euh, Seydou Nuuru Kan di sama maam euh, borom mm-hmm. tul di dimat ñi ngi koy ziar bu baax a baax maam maam mi salni mam no fewi ak képp koo xamante ne yaa ngi dëkk fi nga xamante ne moom moo di Fouta on se donne rendez-vous demain inchallah ci beneen seetu bi et aussi avec une autre équipe Betty I love you oustaz jërëjëf di jégaluwaat ci ñàkk kaala bi <laughs> et merci à l'équipe technique